jërë ngeen jëf ci ànd beeg FTN Média daleen ak jàmm ñu jàngat diggante Serigne Moustapha Sy ak Ousmane Sonko mel na ni booba lépp diggante sagara nga cay xeeñ ndax moom njiital ni ci gàmm gi mu doon amal ca champ de course yëkkatana fa discours boo xam ne ñaawlu na taxawaayu Ousmane Sonko jëm ci ñoom ndax wax na waxi chantage wax itam ne ñoom kenn du leen chantage te ñu ngi xaar Ousmane Sonko ci élection législative yi ñu jëm Serigne Moustapha Sy ba mu waxee loola nag xel yépp daal dina jàpp ne kon seen diggante ak Ousmane Sonko neexatu rafetul et pourtant boobu diggante ci jamonoy Macky Sall diggante la woon bu rattax ndax Serigne Moustapha Sy ku ne fàttaliku na ni mu doon défendre Ousmane Sonko di ko jëlal paax wax na sax démb ci gàmmu gi ne rëccal na Ousmane Sonko ci ñetti tentative d'assassinat maanaam ñetti yoon yuñ doon bëgg a faat njiital Pastef moom Serigne Moustapha Sy moo ko ci muccal lan moo xew ci diggante bi ba mu demee nii est-ce que formation gouvernement bi la est-ce que nañu tabbee nit ñi la est-ce que Moustarchidine dañu bëggoon dugg ay laaj la yu samp dañuy ànd teewlu

luñ la mën a wax pour décourager la dinañ def mais jaru ko a soxlawul kenn yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ñuy chantage ñun bu le chantage yow doo chantage

man mi ma téléphoné professeur Wade Khalifa Babacar Wade ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé Niang parce que ci liquide leen la ñu jëm te ëpp naa bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu ci sax du demati këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gannaawam def leneen kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rekk moo ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa ni lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew dinga nga am loo comprendre waaw mais yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rek am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma lànk waaw ma lànk recevoir waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon bu dee doo ma recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kin séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu la ñu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla binde la leen yàlla binde mais ñun sunu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw et bu ko defee kon nag dañu tudd Yewwi Askan Wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defe yàlla rekk a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de ma defe ni kon nag ca lolé it la deug ba duma Macky Sall duma yu saf-sap waaw li nit ñi soow yépp soow soow soow man wóoroon ne ma ni dafay dem mu des nag lay ñëwaat suite ba na am na loo xam ni pareegul waaw bu ko defee kon nag may ñaan nit ñi rekk ñoo ànd ak seen xel ànd ak seen sago te itam rekk bañ lu riir rekk nga topp ca di dardari di teey dafay baax waaw ñi ca am seetlu am dégg ñoo nga ca mbokk yu bare sonn nañ ci xew-xew bi sax ñoom Barthélemy Diaz yónnee na fi ay ndawal yónnee fi ay enveloppe te xam naa it au fond li mu xalaat lan la ndax yóbbante na wax ko ñeneen noonu ñeneen noonu waaw Déthié Fall mu ko yóbbante Cheikh Youm mu wax ma ko Anta babakar Ngom waxoon na ni fii lay gàmmoo xawma ma nag ndax mujj naa ñëw walla ñëwul bu ko defee réew mi ci boppam moo yëngu te dafa jaxasoo ku yebu ni tekk rekk ba xam liy riir fu mu jëm waaw yenn ti wax yeeg yenn ti tontonte yeeg du ko xaw a jar ndax bari na lu ci am ñuy laaj lu ciy sama position way fekk na duma mësa wax ci kër gi fii wax ni man nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom looloo tax yu bari yuy am mais am ci yoo xam ne sax man la ñuy attaqué mais ça ne me dit rien ndax daf ma wóor ni ñu koy wax raw naa leen ba noppi waaw yàlla xam na ko ñoom ñi sant si ñëpp amu ci kenn ko xam ne dinaa la xool ba defa ni naw la nga pour man

ko defé rek ngeen xam seen bop te ngeen gëna taxaw capitaine wax na len ko ci seen daje yu mujj yi am na koo bu ñu yebee kilifaam rek ca mom la way njabot bu xam kilifaam def la ko war taxaw taxaway bako war kenn du yeb kilifaam waaw bu ko defee rek ñu yërëm njaboot yi yërëm itam sunu gan yi man maa doon tenir pour que ñu bañ di guddee ci gàmmu yi ndax buñ fi ñëwoon cinq minutes sax mu doy nit ñi

mu doon ay kàddu yi Serigne Moustapha Sy jëm ci Ousmane Sonko mi mu wane ne seen diggante neexatul moom Serigne Moustapha Sy kon artu ci législative yi ne ñu ngi leen di xaar est-ce que Pastef bu ñàkkee allié politique bu mel ni PUR mën na ko jik ci législative yi mu mal mu nekk législative yi dul yomb ndax contexte bi waaye itam ni opposition bi organisé woo est-ce que bu ñu àndul ak ñi ñu àndaloon ci yow yi yëpp une majorité confortable à l'Assemblée nationale Pour 80 députés yi ñu am rôles. Andak ak ñi nga àndaloon def aw say moy li gëna woor wóor nak tay est-ce que Serigne Moustapha si dina ruus jomay ndax nee kiko ci jaaxal moy jomay lolu moy laaj et c'est peut-être fofu le président Bassirou jomay fay war jouer war fexé apaiser tension bi ndax ku nekk xamna né ne PUR am nañu doole ku nekk xamna né PUR amna luñu lu apporter euh, ci euh, Pastef ci régime président Bassirou jomay fay ci walu militant mais aussi amna ñoo xam and ak ñoom ci walu politique mo gën fouf nga am leen en face ñu nekk say adversaire donc tay avantage Ousmane Sonko avantage Bassirou Diomaye Faye avantage Pastef ak coalition Diomaye président moy ñu fexé am le maximum d'alliés bu ñu reconstituer waat yeewi ñu reconstituer ko pour minimiser doole opposition mi nga xam ne ñoom itam ñu ngi organiser seen biir def ay bloc te lolu bu soté mën nañoo xeyna am dara ci assemblée nationale lu mëna a président Bassirou Diomaye Faye ak namu bëgg gouverner à 2013 ni ko ñi ci bopp rew mi amé won président Ablaye wad bam euh, tassé assemblée nationale dissoudre ko euh, ci référendum amone na lu ko may mu gouverner à l'aise Macky Sall tamit nono donc président Bassirou Diomaye Faye na xamné gouvernance dafa and ak politique dafa faire ak stratégie politique mais stratégie bi gën moy am le maximum d'alliés du transhumance du dara mais euh, dafa am ci walu politique ñoo xamné nga and ak ñom gën nga am en face de toi donc euh, ñu ngi xaarandi ba situation bi fan lay muju. est-ce que président Bassirou Diomaye Faye dina sol euh, dal daal jàmmam dox tànk jam, ci diggante bi lolu lañu bari di sentu te njott nañu né lolu moy li gën ci ñom surtout ci jamono yi ñu nekk contexte bi jaxaso jafé jafé yi nekk fi mënaguñoo def lu bari am nañu seen ay raisons am nañu seen mais askan wi perception bi muy am moy dara Com comme dara bougéegul nak da ngeen di fexé am surtout ci seen ay diggante ak alliés ci wàllu politik loolu mooy li gën.